conseillers municipaux yu Patte d'Oie jàpp ne seen maire bile place du kaso ba ndax nag jàpp nañ ne liggéey wu am solo yi nga xam ne mu ngi koy def di jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi moo waral mu nekk fa mu nekk tey waaye nag jàpp nañ ne ni ñu tegee loxo seen maire bile dëppoowul ak yoon. tey dañ naan pas-pasam ak euh, sens le en notre sens injustement emprisonné parce que noonu lañ ko mën a tuddee. parce que ñun nous sommes des citoyens moom it elle est bu ñu xëyee jël ko ci suñuy loxo yóbbu ko te amul dara loo xam dañ ko teg suñu loxo mën nañ ne elle a été emprisonnée de manière injuste voilà. Maimouna Dièye nag daanaka fukki fan ngi nii mu nga ca biir kaso ba ci lu yàggul dara sax dañu ko rawaloon yóbbu ko ci pavion spécial bu hôpital principal bu Ndakaaru ndax kon conseillers municipaux yu Patte d'Oie jàpp ne tey wérgu yaramam mayu ko. mu des ci kaso ba. yow mais boo xësee ba wax ak moom rek wàcc na kon kooku ku mel noonu ànd ak détermination boo ko naree téye pour nee naa ko téye pour décourager ko wala pour wax waxloo ko pour euh, noppiloo ko gëmuma ne di ko réussir mais da ngay def tey yàlla tax ak tey soutien bi taxaw ñun ñëpp mbooloo askanu doomu Padois yëpp taxaw pour que ñu libérer ko mu dellu si ci këram mën a faju heure bu ñu ko soxlaa woo ko mu dem wuy ji. Maimouna Dieye ci élection locale yi ñuy weesu lañ ko taboon fal ko commune bu Patte d'Oie ci luñ koy topp tey bokk na ci appel à l'insurrection ak acte de manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique responsable des femmes Pastef bile dañoo jàpp ne moom moo doon financer manifestation ya ca Patte d'Oie gannaaw bi ñu tegee loxo Ousmane Sonko.